mbégte banneex la ñu am saa su nekk rek di ànd ak yéen ci site internet bi di Buzz 24 Sénégal li gën a fës ci bopp xabaar yi nag dañu koy doore kàddu yu doy yi nga xamante ne rek Ndéné Mbodj daal dina ko yëkkati moom directeur général bu centre des œuvres universitaires bu Dakar daal dina yëkkati ay kàddoom nag nee na daal li ne moom di fekk ca boobulee bopp moo mel nekk na mbir moo xamante rek mbir mu doy la ñeel crédit yeeg ligne téléphonique yi nga xamante ñu ko doon saax saaxee nu mu leen neexee nee nañ lu toll ci ñaar fukki agent ak juróom yoo xamante rek existé nag ñoom lañ ko doon jox am na ci ñoo xamante ne sax dañoo daal di ñàkk seen bakkan ba noppi rek ñu leen di jox nag ab salaire di kaddu yi nga xamante ne rek directeur général du centre des œuvres universitaires bu Dakar di Ndéné Mbodj daal dina koy ci sunu nattango yi jot na TV moom nag daal dinay déclaré que ne ancien directeur généraux yi ku ci mel ni Abdoulaye Seydou Sow ak kii di Cheikh Omar Anne ba nëga ni rek ña di jot nag seen crédit ak seen ligne téléphonique ci bañ leen tabbee ñu nekk nag ministre nee na kii di Cheikh Omar Anne moom la muy consommé ci crédit mi ngi toll

Seydou Sow nag moom la mu jotee consommé ci crédit mi ngi toll ci 10 millions 403 mille euh, francs CFA ci diirub 2020 jàpp 2024 ba nag ni rek euh, kudd ma ngay wéy di vider nag crédit ligne téléphonique yi waaye moom nee na ma ngay jot lu toll ci euh, mille francs CFA yoo xamante rek bi nag 10 dañ koy dal di jot ci crédit mu nekk nag mbir mu doy boo xamante ne rek daal dinañ koy gis foofa ca centre des œuvres universitaires bu Ndakaaru ki ko ko gis du kenn rek lu directeur bu yes bi di Ndéna Mbodj moom nag moo daal di def boobu lee annonce du ñàkk rek dinañ ci ñëwaat ci yeneen jotaay xabaar jërë ngeen def ci ànd bi bu leen fàttee abonné bés cloche de notification yi ngi dara bañ leen raw